arbitre bi ngi waaj a soufflé troisième combat de la soirée Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh moo la féete ginnaaw ngembo ngemb yu ñuul nekk ah, ah, ngi nekk écurie Doudou Bakar Sarr ndeysaan moo la woon top 5 Ngor Niakh moo la woon ginnaaw li nag la ñoom ñaar ñoo xamante ne ay mbëru Ndeysaan Ngor Ñaax Ngor Ñaax top 5 Ngor Ñaax top 5 ñu ngi demee wet ñoom ñaar Ngor ak top 5 ci la Cobra di tuus ah wala ko xoolaat. ndax bëggoon nañoo am Touche Cobra grand combat bi Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh top 5 ndeysaan Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh a ngi déplacé wu arbitre bi nee na laale leen arbitre bi nee na laale leen Ngor Ñaax ak Top 5 Ngor Ñaax Top 5 Ngor Ñaax moo la woon ginnaaw Top 5 moom ngeen jàkkaarloo arbitre bi àtte na kaay leen da ngeen a war a bëre waaw waaw da ngeen a war a laale. da ngeen a war a laale. waaw waaw. arbitre bi sifflé waat na. ndeysaan Ngor Niakh top 5. Ngor Niakh moo la woon ginnaaw ngeen boog ngeen lu ñuul li mbokk yi top 5. moom ngeen lool. ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu dara xewagul ba tey ci ngóor ñaax top 5 cokaas na ngóor ñaax déplacé na tànk bi daa mel ni tànk bi mu teg pour bëree mënu koo xeexee moom Ngor Ñaax changé na pied Ngor Ñaax changé na pied avertissement Ngor Ñaax avertissement top 5 ay ca laale leen ay ca laale leen laala baaxu góor la góor ñaax top 5 góor ñaax top 5 jóge na père Ibrahima Mbaye ci xaar fa xum fay ay butéel la yor ak studio moom père Ibra góor ñaax top 5 dara xewagul Ngor Niakh top 5 Ngor na top 5 Ngor Niakh top 5 lan moo nar a xew Ngor Niakh top Ngor Niakh top 5. top 5 dóor na. daaw na jëli ko. daaw takk na ko. Ngor takk na ko. top 5 bañ na ah top 5 mi mbër la ah. top 5 mbër la ah. ndaanaan la ma ngay xeex. ma ngay dóor. top 5 dóor ko. dóor ko mbaa du ko mu daanu. top 5 dafa wax Ngor daan na ko. top 5 dóor na ko. daan na. Ngor Niakh daan na top 5. Ngor Ñaax daan na top 5 Ngor Ñaax daan na top 5 daan na ko jël bu rëy